déglu leen déglooti leen bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah mbokk yi tedd seetaan ak fu ngeen ñu mën a seetaane ñu ngi leen di nuyu di leen seet di ñaan sama borom boole ñu defaral suñ biir ak suñu biti ñu fas yéene ànd ak yéen tey ci émission bu mag bii di ëttu ndaanaan yi wala cour des grands ki ñu fi dalal nag di ndaanaan loo xam ne kenn dootu ko présenté ci pénc mi kenn dootu ko wax mooy kan ci Sénégal waaye nag li suñu mbokk di wax suñu benn mbokk dafay wax ne promotion du doy walla boog xamle du doy kon nag saadatul oustaz tey yaa ngi fii ànd ak ñun ci SeneInfo International waaye nga nekk fii nag ak say mbokk ak say taalibe ak say xarit ak say soppe fii ci New York America boo bëggoon a wax ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan al oustaz Alioune Sall mooy kan kan mooy Oustaz Alioune Sall bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li la waxlul uqdatam lisaani yafqahu qawli imaam maa ngi lay fay nuyoo ba noppi tegal la ci nuyoo di nuyu ñi nga xam ne ñooñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan su nuyoo bi fekk ñëpp ci jàmm di ñaan jataay bi su guddee ak su guddul yàlla ñu jëriñ ñu koy def jëriñ ñi nga xam ne ñoo koy seetaan am mbégte lool ci li ngeen dalal fii ci jàkk ji waaye li ngeen dalal fii ci émission bi nga tuddee ëttu ndaanaan yi yàlla ñu yàlla def ndaanaan eh, Alioune Sall mooy kan mooy benn kaw kaw bu jóge ca kaw gu ñuy wax càlle càlle nekk ca région bu ñuy wax Diourbel nekk ci département bu ñuy wax Mbacké nekk ci arrondissement bu ñu tuddee Kayal foofu la Alioune Sall ganee jamono ci at yii ñu ganee jamono it jamono mel ni mel waajuram wu góor méccam chauffeur la yoroon. toxoo càlle ñëw ci fu ñuy wax mbàkke ca la ñu toxale indinu na doon ay tut tànk kon kan mooy Alioune Sall mooy kaw kaw boobu jógee càlle ci at yële waajuram di toxu mbàkke yóbbaale ko mu doon tut tànk amagul fukki at yu mat oustaz bu ñu déggee présentation bi niñ xamee jamono ak niñ xamee réew ma ñaare baykat njabootam ay baykat lañ daa dox dawalkatu oto bu sañoon doomam kenn du ko dàq oto waaye ñu xam al oustaz Alioune Sall ci milieu bu nga xam ne dañ daa wax ne diw diwoo ko jur diw mooma lii la daa def diw mooma lii la def waaye yaaram nag di wax ne nafsu isaamin sawadat isaama <laughs> wa sayarathu sayidan humama <laughs> gis naa ci mbindum Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu mm-hmm. mu bind lettre doomam di ko wax ne ko kun isaamiyan laa mm-hmm. takun idaamiyan mm-hmm. nekkal di isaami mooy defal sëriñ sa bopp waaye bu nekk di idaami bu la ko ay yax def kon nag oustaz ak njàngum alquran oustaz ak al islamiya ndax oustaz mën nañoo wax ndawam ak njàngam akuk parcours am ni muy ñëwee Dakar. jërëjëf laaj nga laaj bu am solo ah kay sunu waajur mi ci safoor la yoroon waaye dafa nanguwutoon nu nekki safoor man oto boo ma yëg ne dama cay lang daf naan ma ëpp naa def euh, du ma ci sawar du ma ci sawarloo métier jëm ci métier oto yëpp mécanique moo xam tool xam nangam bu ma ci song rek mu ni déedéet boobu fekk nu jóge ca daara ja nag ndax man tubaab laa njëkk a tàmbalee jàng. tubaab tubaab waaye njàng ma daa yàggut moog yé moog yéegu béy ñooyam. yéegu béy yéegu béy ndax mercredi laa dugg école vendredi laa génn. yàggoo fa déedéet yàgguma fa léegi nag bi nu nekkee foofu dañuy génn ca école ba yóbbu ñu daara daara yi maami kii bii alimatu góor gi ma doon jàngal alxuraan moo jur yaayam. alimatu sa jarbaat bi nekk ñun fii ci góor gi ma jàngal alxuraan moo jur yaayam. ñamu jàngal alxuraan te ñu jiitu ñu fa ñu nekk suñuy njaatige ku ci mos mokkal boo taree bàqara ba naasi diplôme bi mu lay defal mooy jël njabootam jox la lu moo doon diplôme xam nañ ci juróom ñoo xam ne ku ci nekk da ngaa mokkal alxuraan lay defal shahada shahada bi mooy jël ci njabootam jox la léegi nag nun ndaw ñi nga xam ne mhm. jël ci njabootam jox la mën nañ ci am déggin yu bari mhm. ndax mooy jël ci njabootam jox la nga jàngal mbaa jël ci njabootam jox la muy jërëjëf lu laaj bi am na solo mooy ca njaboot gu jigéen ja jël kenn dénk may la ko soxna ca njaboot gu jigéen ga xam nañ ci yu mat juróom comme ñun bi ñu ñëwee nag fekk nañ euh, njaboot gu jigéen gi bu jeexutit ci des bariwunu wala nun tolluñ ci samp kër ñun amuñu woon chance mu jox ñu ci njaboot ga nu ñibbi noonu léegi nag fu ma nee fa dugg rek góor gi ne déedéet ba ni dugg ab arab di jàng arab ca ca càlle suñu dëkk mu ne loolu de moom d'accord naa ci imaam maa ngi fàttaliku sama maam faatoo ma ñëw di ko tàgge si maami alimatu mi daf maa ñaanal ba may sol samay dàll mu ne waa yow sax ci loo nekk ma ne ko damay jàng mu ne ma looy jàng ma ne ko arab mu ne delsil ñaan gi ma la ñaanaloon bokkut ak ñaan gi ma la bëgg a ñaanal bi mu yëgee ni damay jàng damay jàng arab jàng arab moom nag ci la ñu nekk yàlla def lañ ca forokos néew boole ko lañ for ci alxuraan ñu ne cay nab nabi moo nu jural léegi nu dugg ci di ko jàngale ndax man jàngal naa dëkk yu bari damaa teel dugg ci jàngale nag. jàngale jàngale. ndax dëkk ma njëkk a jàngale mi ngi tudd euh, Njote Sayaan. ci Bawol la. déedéet ci Saalum. Saalum Malem Odaar. Cheikh Muxtada mii euh, daan ñëw ci dëkk bi. wajuru sëñ Maam Moor moo samp daara ju mag ca Sénégal ju tudd Al Azhar mu woote concours. pour recruter wala bind ay jàngalekat yàlla def ma bokk ci ña at ma woon ñu affecté ma fu ci dañ jote sayaan balaa njëkk jàngale a ci ay vers 1979 su ma juumul côté yu du ko sori foofu laa njëkk jàngalee bi ma fa jàngalee nag doxut mu ñëw fu ñuy wax jawre kuta jawre kuta mi ngi ci mbawal ci boobu kaayal jóge fa dem dëkk bu ñuy wax Louga Louga nag dem naa fa fu ñu wax ñem Cissé dem naa fu ñu wax njare Touba Ndiaye dem naa fu ñu wax Manarul Huda dem naa fu ñu wax euh, alxanafi bu Xaaji Abbas Sall dëkk yooyu yëpp war naa ko ci dëkk yooyu yàlla def ba tey rek muy def noonu ca laa doon soppee nag li ma doon liggéeyee ma bëgg a bàyyi jàngale arab defi leneen bi ma xam waxtaane sama benn xarit mu ne ma tee ngaa ñëw nga dem tàmba fekk fa Momar Sarr moo fa yor probo ville wala probo agricole lu mel ni ko yooyu soo demee mu lebal la fond nga soppeeku booba la ma bëggoon mooy bu ma lebalee xaalis ma changé métier di jaay xar ñu dugal foofu laaj bàyyi la nga développé bu mhm. fekkee ne alquran mooy kàddug yàlla mhm. te moo gën ci lu nit di jàng mhm. yonentu wax ne jàngale ko moo gën ci mécc ba wax ne sax ñi koy jàngale ñoo gën ci ñun te alquran wàcc ci làkk bu yaaram xam ne jàng yaaram dana tax nga mën a dégg alquran yow yàlla may la ci alquran loo mën a jàngale mooy la ci làkku yaaram loo mën a jàngale nga jaar ci dëkk yi yëpp di fa jàngale te ba léegi da njàngale ma dajale fa loo xam ne mën ngaa gis ni lii mën nga caa demal sa bopp ba fas yéene soppi loolu ndax loolu li muy firi mooy desal guñ desal gannaaw alquran ak làkkub alquran te bu fekkee loolu am na loolu nan lañ koy mën a déggee ci dëkk boo xam ne ñu ko ëpp wax nañ ne juróom-ñeent fukk jàpp juróom-ñeent fukk ak juróom-benn. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi tiitaroo ashhadu an laa ilaaha illallah di julli julli juróom di jàng alquran. Mm-hmm. ne jullit lañu jullit lañ sax. Mm-hmm. loolu nuñ ko mën a déggee ustaas. jërëjëf xam nga sunum réew dañoo nekk ay jullit yu français yar. ay jullit lañ mais ki nu yar nag moom bokkut ak li nekk ki nu yar dafa mel ni day def orientation ci ñi muy yar mbirum diine lépp gratuit la leneen lu dul diine nag fii jàppale na du gratuit moo tax kay jàngale diine foofa mën naa jàngale dëkk yi bay wax waaye ñaari birig mënu koo tegale ñaari birig mënu ko tegale te suñu wutoon ay poti meew dindi meew ma yett leen wut juróomi nit ak man muy juróom benn ñu fenqale pod ya di wax wax ju jooyu léegi te ñu tudd ñu weneen tur fu ñu bëgg dem dem fa loolu la loolu yàlla dogal moo tax bi ñu tollee ci affaire ñu ne kon noonu nan bàyyi métier mi te dem def meneen métier. dugg ci mbay dugg dugg ci jaay xar. dugg ci jaay xar jënd xar jaay di commerce. waa yàlla mi nga xam ne moom dara tëkku te mooy al azizul hakim moo fomm suñu yoon woowee ndax may wax ne su booba su ma amoon paasu Tamba direct Tamba lay dem heureusement aw ma paasu Tamba xam naa du ma wax malheureusement lay wax <laughs> aw ma paasu donc ginnaaw aw ma paasu Tamba te Tamba laa jëm dañuy fexe pexe yu ma Tamba pexe yooyu nag sama xarit bi ñu doon waxtaanal mu gis ne am na oto buy jóge ci dëkk bi eh, dana dem dakaar ki may fekki moom dana jóge dakaar dana jóge Tamba ñëw dakaar seetaan si conférence buy am ci koor gi te Oustaz Ahmed Dame Ndiaye di ko def ci wàllu économie islamique. ma ñëw Dakar nag pour xaar ko moom su seetaanee conférence ba noppi buy dem yóbbaale ma. sa transition Dakar. loolu loolu ci ci ci loolu la jógee. bi mu ñëw dakaar di ko xaar nag comme koor gi ñëw na te conférence bi lay seetaan si ci koor gi te ñibbi may xaar pour woore dakaar moom bu seetaanee bay dem rek même suñu wari wutul buy dem yóbbaale ma bi ma ñëwee Dakar nag di xaar loolu di ko xaar bi koor gi duggee jumaa ji may jullee muy jumaa jëppal ji jàkkaarloo commissariat bi oustaz ba fa daan jiite tafsir ba Cheikh Al Hadj Aziz boole kook mbooloo yebal leen ñu dem umra kon jàkk ji amul ku fay tafsir bi ñuy wax tafsiir tafsir tafsir nag ku fay tafsir bu koor gi ñëwee sama benn xar bi may tudd lu bari muy Ahmed Dame Ndiaye yàlla na ko yàlla yokk wér ne ah man de am na ku ma nekkaloon luga xam naa wóoruma ba xam dana mën a wuuti ki fi nekkoon déet. waaye jàpp naa ne mën na cee nab na bi ñu daal mooy jël si ma ñëw tàmbali tafsir bi looloo ma tee dem Tamba. kon li Youssou Ndour di wax miin nga Dakar bu ñu jàppee ci say wax. Mhm. Eh, miin Dakar ba delluwul. Mhm. ko tax a miin Dakar wuute ndaw ñu bëri di leen tax a mhm. ne wolof li muy wax ne. bu buum nga dogut bu yàggee ndox dina ñëw wala mhm. xëcc bu dogut dikk dikk mhm. kon xëcc boobu euh, xëy na dem nga ba jàppu ne xaddi war ngaa xaddi mhm. xaddi jot na te dégg naa sëriñ Cheikh mu ne saalit sax ci tudd yàlla la bokk mu ne saalit lëf la ci ñaan ndax yonent yi sama borom tudd na ne daan nañ toll koo xam ne ñoog ñi gëm buñ saale tuuti daan nañ ko jege xataa mhm. yaqula rasulu wala xataa yaqulu rasulu ci beneen jàngin walladina mhm. amanu maahu mata nasrullahi mhm. ala inna nasrallahi qarib kon oustaz nekk na ci alquran nekk ci yaaram di ko jàngale ak di ko jàng waaye dem ba gis li ñu wax ne mooy jeexitu nekk français yi ci suñ biir wala yilif gi ñu français yi yilifoon yi dégg ñuy nettali sengoor loo xam ne wér ga leerut ma waaye maanaam yi moom wér na mhm. mooy ñu ne biñ ko joxee Fran euh, Sénégal ab diir dafa seeti kilifa ga ca Rome mhm. te yilif suñu mbokk yu baax yi ci réew mi catholique yi mhm. nee na kooku ne ko lu tax ba léegi defuloo Sénégal ñu nekk ay katolik te muy lu lu logique nag. Mhm. man mii bu ma sañoon ñu ëpp ci Amérique tey ay jullit la ñuy doon. Mhm, ci lu wér. moo tax loolu duñ ko ci sikk mais ñu mu ne ko mais je peux pas mais je peux faire de de mauvais musulmans. Mhm, je de de mënuma leen soppi euh, ndax diine na mu mel ci ñoom. waaye mën naa fexe nag ba buñ dee ay jullit it ay na tur wala ñuy gën a niru ak jikko jël. mu mel ni bi nga demee ba bëgg a tourner jëm ci leneen mhm. sama borom ne la ala inna nasrallahi qarib qaribun mhm. ñëw na Dakar tàmbali na tafsirul quran ci jëppal ni ko waxee mhm. ci recommandation mbokk moo xam ne yéen a bokk lu ngeen di def mel ni loolu it beneen leçon la xam ne mbokk moomu kilifa googu mu ngi ñu koy jàngal mooy damay dégg alaaji Daawda si danay dal fii lu bari mhm. mais tuxkati cigarette yi sax dañuy séddoo waaw mego ko <laughs> dëgg la nit diine yi ñoo war a gën a mën a yaatal moo mel ni yaatal googu mhm. kooku xay na bu ko yàlla fayee loola mhm. dana bëri lool ndax yaatal googu yàlla ubbee na ci def na ko muy sabab ñu tàmbalee xam oustaz ba tey ku nekk ci Sénégal di xaar oustaz bu fekkee ne ajjuma jot na pour tafsir mhm. bu fekkee ne fajar jot na pour waxtaan bu fekkee conférence jot na bu fekkee nangam loolu nga xam ne nag li yonent di wax ne man sanna fil islaami sunnatan xasanatan waaye oustaz yaa ngi ci jàkka ji mhm. waaye jàkka ji moom non ba ma ko oustaz nga baal ma ci kàddu gi mhm. ba jógee ci jàkka ji ñu toog dégg oustaz ci rajo dunia ak yeneen i rajo kay jërëjëf laaj nga laaj bu am solo ni laaj weesu yëpp ame solo yàkk ji bi ñëwee dañ maa jox tafsir bi boobu yoruma téere tafsir ab kaamil rek laa yor di ca nab na bi ca kaamil ba tàmbalee alfatiha nag di def li may def bi nga xamee ne def nañ ko ci ba koor gi di jeex ma tàggu paay nag ne leen maa ngi continuer sama yoon ndax Tamba laa jëmoon am na ci góor wax Ibrahima Diallo ñu ko daan tuddee commissaire Diallo ñu daan dem bureau passeport jamono yooyu moom moo jiite woon bureau ba waaye bi ma daan tafsir chaque jour da ñëw am na góor ñu wax Amidou Diaw da daan tàgge ca rajo Sénégal Alpulaar am na ci góor ñu wax Ansoumana Badji eh, benn douanier bu retraité ab groupe lañu boo xam ne bët bu set ak kuñ wax kuñ daan wax Babacar Yadd Mbay Yadd papa la ci yàdd bi nekk RTS ñoom chaque jour daañ ñëw tafsir Mbay Yadd moom da ko daan enregistré bi jeexee nag ba mu leen maa ngi jàll Tamba nag góor googu di Ibrahima Diallo commissaire mooy papa yi Alioune Badara jàll mi nekk TFM wala RFM daal di woote réunion ne leen kii kat buñ ko bàyyee mu dem Tamba Tamba ëpp nu doo ëpp nu sens bu fa demee duñ ko bàyyi muy jaay xar kon nag nun nan ko téye nin koy téye nii la man de weeru jot danaa joxe nangam liste baa nii yow loo mën a joxe kellu mën a joxe kellu mën a joxe biñ ko defee ñoom ñëpp mu doon loo xam ne eh, mën naa ci faj tuuti ay soxla ñu ne ma wutal néeg ma wut néeg usine ñaari teli looy fay ma ne douze mille cinq ñun daañ ko génne ci li ñuy cotiser am nga laa déedéet am nga nangam am nga nangam déedéet ñoom mag ñoo ñu fexe ba loolu am ñu daal ma fay téye léegi koor gi jeex na damay ñëw fekk leen ci jumaay jàkk ji di leen jàngal a ba ta sa i bi ti ak ba bi boog ñoom seen yooyu ci loolu lañ ma téyee léegi nag bi koor gi dellusee ñu ne ma kaay tafsiraat bi may tafsir nag am na ko fa jaar ku nekk rajo Dunia ku ñuy wax Ousseynou Cissé dafa faatu yàlla na ko yàlla yërëm daan benn baas am naa benn élément nu ko foo ko jëlee mu ne dama koo romb jumaay euh, jëppal di jàkkaarloo commissariat bi muy tafsir benn baax na ko me ñun am nañ tafsir kat mu ne ko waaw mais la muy wax moom damaa yaakaar na ne mu ci tafsir benn baax na ko wool ma ko benn baax woow ma ñëw ñun nuyoonte jàmmante mu daal di présenté euh, waa ji ma loolu dama nag léegi ñun de am nañ ko fi tafsir mu ne waaw mu ne waaye nag soo ñëwoon jàpp ci émission yi ñu jël mu ne Aïcha mu ne ma demal rajo nga fanaani ajjuma ci guddi falaa fekk Abdou Latif mii tey maak moom ñoo fa doon bokk di fanaan ak al oustaz Tayib Socé bu digg ma njëkk fanaan bi benn baas xëyee dafa woote réunion ne Cheikh Tidiane bi tey directeur bi ndax déglu ko ki fanaan bi mu ne ko waaw yow déglu nga mu ne waaw yow déglu nga mu ne waaw mu ne léegi nu ngeen gisee moom lim doon wax mu ne leen man de su fekkoon day day day anime musique man benn baas bu subaa ma ne ko xëyal mooy la ndax voix bi accent bi ma dégg bu doon animé musique nu ma baal. <laughs> neex na yéen nag kat kaddu gaa ngoog sax daan bi tey jël wax lu rafet keneen wax lu rafet mu ne ma kon léegi ka jàpp ci liggéey bi mais nag ginnaaw fanaan mi da may proposé ñaari émission ma tànn ci benn ma dem kër ga daal di bind. ne émission bii de maa ngi ko tuddee risaalatu saqalay ni moom laa ko tuddee waaw ma daal jël beneen émission ne ko émission bii nag maa ngi ko tuddee al bidaaya ci ci leeral ndax sama mbokk yi. waaw risaalatu saqalay ni benn émission la boo xam ne maa ngi ko tuddee woon lettre bi jëm ci nit ñi ak jinne yi. al bidaaya. al mooy maa ngi tàmbali moom laa continuer fi na rajo Sud FM moom laa yor ba léegi. alxames ci guddi léegi bi ma ko ko yëtee nag am na ku ñuy wax aw Awa Balla mi ngi ci Masaalikul Jinaan ca jumaa ja ca Ilimaan la bokk ma ñëw fekk mu toog bureau benn baas benn baas jël këy ba jox ko ne ko kii de ab émission laa ko doon bindloo noo gisee lim def Cheikh Awa Balla Gueye ne ko ah xaw ma lu muy wax de après xaw ma ko waaye lim bindi fii de moom jub na loolu la ko wax. xaw ma lu ma wax nag après waaye li mu bind fii moom jub na. noonu nga tàppale rajo. Dunya mu ngoog. ba gannaaw ga ñu gis la ci yeneeni i rajo. Mhm. ak ci plateau télévision yi. Mhm. yàlla def nit ñi bëgg oustaz ci jëmmam mën naa am am na yu bari yu tax waaye xëy na li ci gën a am solo bu ñu ràññee ñun. mooy woyof gi mooy nooy gi mooy ubbeeku gi mooy kanam gu leer gi foo ko gis nga xam ne nit moo gën a bëgg lu rafet waaye nit it wolof dafay wax ne kanam kaso la waaye ko kanam du kaso waaye kooku tëjal borom ko mu xam ko mhm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam it ba muy tënk risalatoom gi mu ne des maa yónni ngir ma matal wala ma mottali jikko yu rafet mhm. mu mel ni jikko jooju tax na nit ñi ci wàllu comportement mhm. waaye ci wàllu pédagogie am na ay bagage intellectuel yoo nga xam ne mhm. xëy na góor googu bokk na ci ñi ko njëkk a seetlu ne kële de bu dee tafsir it la muy def romb na maanaam tafsir la ak dara euh, pédagogie boobu ba boo tuddee oustaz rek am yu bëri yu nit ñi xalaat hmm. ba ci nogay na ñoo xam oustaz ak nogay hmm. waaye pédagogie boobu oustaz ndax loo tàggatu la hmm. wala avec expérience ci la ñëwee wala la yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi waxoon saxaaba ba ba mu ñëwee ne ko yàlla def na ci yow ñaari jikko mu laaj ko ne ko ndax lu ma fàgguloo wala lu ma yàlla bindee la mu ne ko lu la yàlla bindee la mu ne maa ngi sant yàlla bi ma bindee ñaari jikko yoo xam ne yàlla bëgg na leen yonantu bëgg na leen. pédagogie boobu oustaz. waaw pédagogie daf ci am pàcc bi ci ëpp. yàlla koy maye ndax wa man yuuta al xikma la wax wa man yuuta al donc loolu moo ko joxe. lim ci joxe grande ligne lay doon complémentaire yi ki nga xam ne moom lañ jox loolu moo koy jëm a développé ndax communiquer. day aaji woo jéem a tolloog ngay waxal fréquence bis boo tolloog nit ki fréquence maanaam boo ko waxee mu dégg la loolay benn bu ñaar ba góor gi Abbas Sall dafa daan wax ne bàyyi leen waaraate bi te yeete muy ñaar bu ñetteel bi man ci wàllu woowu lépp luy masalam xilaaf fa koy teg ndax masala yi nit ñi dëppoo defar na penc ma kon indil leen xilaaf da yokk joote très bien ku man solution laay wut ba tax may bàyyi masala xilaaf yëpp ci li nga xam ne moom la euh, mag ñi jàngale te mu nekk lu lu ñu dëppoo defar na penc la ci tegee ci wàllu pédagogie nit ki day xàmmee lim bokk ak liñ ko boole li mu nekk ak li doon sunu penc ma lee kuy kuy jàngale day bàyyi xel yooyu lim bokk ak liñ ko boole lim bokk mooy lislaam bi moom kenn boolewul ci da cee bokk bu dee këru diine yi kër goo ci bokk rek da nga dañu la caa boole da boo xàmmee ñaar yi dafa am lu am solo lu muy def ci sa message ba ca tege mooy fexe ba sa gémmiñ gi doo ci génne mooyu négatif yi parce que jàngalekat day moytu mooyu négatif yi ba ca tege mooy moytu di di critiquer nit te noppegoo ci sa bopp diw li mu wax du dëgg déedéet loolu teel na defaral sa bopp bay wax dëgg yow te nanguñu wax la dëgg Ah? la ci tege mooy li nga wax ci wàllu jéem a woyof alayhi salaatu salaam sunu borom def na ko wax fit janaaxaka li ma ne tabaaka minal mu'minin bu la kenn topp yëg na da diis bu kenn topp yëg na diis xam nga lu muy tekki mooy xam-xam dafa ñàng numb woo dafa ñàng jàngale dafa ñàng bu ci bu ci ki booleeg ñàngam kañ la yokkaañ <laughs> du du sotti kon daa war a bàyyi ñàng-ñàng yooyu yëpp moom woyof ba nit ñi ñeme ko wala boog su ko mënti mu jéema a woyof ba nit ñi ñeme ko loolu daal yaakaar naa ne bu ko ñu ko ci wàllu ci wàllu woowu dana mën a dem su dee lu mel ni nogo yi xam nga waxtaankat ba mu yàgg mu ne jigéen ñi daal ne baaxuñu loolu ëpp naa wax di na jigéen ñi ba noppi indi ba moomu négatif déedéet su ko defee man yooyu may wax nag mu wut koo xam ne kii mooy Nogay. relation mbokkum kii la bàyyi Nogay ak bàyyi kii ñoo bokk benn baay sama yaay ak papaay Nogay ñoo bokk benn baay léegi te nun suñu dëkk càlle dañoo am kii sang bi kii mooy jaam bi kii mooy jox ko kii sagar kii fi nekk nii su ma jogee moom war na maa jox xaftaan ñun lu lañ xewal léegi nag man ma jël ndogoy su ma toll ci loo xam ne lii jaaduwut wala jékkut wala nangam du ma ko jiñ jigéen ñi ndogoy laa koy jiñ waaw su ma doom la jaay ndogoy laa koy jiñ su ma ko jiñee ndogoy nag nit ki man ne ah man ne jikkooy ndogoy ji mi ngi ci man loolu nag yaag ndogoy la du dëgg man ma mucc bu dee ci góor ñi ma jël ma ja Xuja. waaw Mor Xuja. yaa ngi doon développé ci dul xar nay ni ak ñetti tukkeem yooyu. Mhm. ak fa mu njëkk a nan la defaree penc ma. Mhm. ba xam ne ku ca jaar sam penc mën a defar. jërëjëf. sul xar nay ni di xis bi mujj ci saar bi ni ma ko waxee sànq borom bi di ñu ko nettali dafa ñëw ci xis bi mu mujj def ko ca waaye ci tukkeem mu njëkk. fa atbaa sababa suma atbaa sababa tukki bi mu njëkkee def fi mu wàcc dañ na ko ñun problème bi ñu am mooy dañuy tëral ay loi mais kenn du ko jëfe duñ ko teg ci kaw kenn mooy la loolu jeex na fi li muy tekki mooy bu fa jeexee rek maanaam penc mu am ay loi lii dañ koy tere lii lañ koy def nangam lii nii lañ koy defee penc ma commencé jag tey soo jëloon lu mel nii dakaar Dakar nga xam ne capital yi ma xamagum moo ci gën a xajam xaw ma salte xaw ma waaye nag xajam moom xajam mooy lan kum neex fa la neex mbaar fu kum neex fu la neex gaare kum neex fu la fu neex jal suuf kum neex fu la neex teg say birig kum neex fu la neex gasum pax fu neex tànt denk yooyu yu xajam yooyu la sul xarne ni gis ne penc mu koy am du dem te it su fekkoo loolu lañ koy tere tey man danaay wax ne man ministre bi yor bi yor bi yor intérieur su ma embauché woon jox ma jox ma sañ-sañ danaa wutal xale yi liggéey ba kenn du ñëw fii di jaar ci àll bi hmm. kenn dutu dem Espagne te it dëkk bi dana set te dañu am xaalis nu ma koy defe mooy téléphone yi yu ci bëri am nañu WhatsApp yu ci bari ma am sama biro mantam tam maag gaay bu Modou Ndiaye mii ñëwee ma embauché ko ne ko oto boo gis mu gaare ñaari ruu yi tege ci kaw tali bi fotool na foto bi ñëw suma bureau oto boobu dana fay six mille francs mille francs yi moom yi moo koy moom mille francs yi moom moo li ci des dem ci direction bi li ci des dem ci état bi wala ci commune bi ñu ko defee léegi su su photo fukki oto ñaata lay am dix mille dana am dix mille su photo fanweeri oto lu muy am trente mille léegi moom sa kon lu photo rek lu ñu tolloo lay am bu ñu neexee ñu yokkal ko au ñu ko jox di deux ñu ñu ko jox deux mille jëlob suuf ba mu photo ñu alamaan borom gis nga day mujj jàgg doo gis jëlob suuf ci mbedd mi waaye ñun sanction yooyu lañ dul kenn lu waay mën di def rek dara tey dangay dawal sa oto bi jën waaye ne tël mbëkk la xam nga lu muy def loxo ba lay gën rek ne la jégalu point moom jàpp na bu ne jégalu rek moom génn na ci te loolu seen dëkk bi kenn ko fi def te xoolal seen teli kaar kaar ni mu yaatoo xoolal seen fëy ñun fi de feu day am dakaar nga ñëw burle ko kenn ñeme na ko fii kenn ñeme ko fi jeex na la ca teg mooy ñun fi ne suñu rond-point kenn du ko def nii ñun suñu rond-point léegi nii lañ koy def boo demee pont bi raax moo ci gën a métti da nga daan ñëw ni jaar rek bu rond ba dem léegi ñii nañ koy jaaree ne ñu ñu tegaleen ay baaraas ñu jaaree ko nii ñu jaare nii léeg-léeg oto yi mbëkkante fii léeg-léeg ñu yuuxante fii léeg-léeg ñu saagaante comme ça donc penc mi sol xar nga ne naan li koy doxal mooy. imma an tuadiba rek duma duma ku jaarul ci yoon sanction yi nag duñ la tëj waaye buñ la tegee cinquante dollars cent cinquante dollars nangami dollars buñ la ko tegee tegati la ko lii lay tere nga bàyyi ko yàlla ñu yàlla boo lay allah ustaz ni mu ko waxee mooy toog rek gis benn meel am na lettre bu lay wax ne war ngaa fay nangam wala ab policier gis ne yaa ngi def loo warta def mhm. su la arrêté ñi moo ko jéem a ger moom it xalaatu ko ndax lim sol ay am na ay caméra te it bu la bindalee ticket du moom ngay amal affaire da di dem ngeen ñaar ngeen la yoo ndax li wax dëgg la wala du dëgg <laughs> soo indee say preuve juge bi ne ko li nga wax du dëgg soo indiwul say preuve mu fay loola fay googu nag mën naa yegg ba ci ab permis moom dootoo ko amati yooyu nag nga wax ne mooy luwaa yi nga xam ne am nañ fii gënuñu luwaa yi am fële mm-hmm. waaye li nga wax moo ci am mooy des leen a teg ba noppi duñ leen appliqué mm-hmm. kon nag mbokk yi fii ustaas taxaw muy suratul kahf te koy jàng ajuma ju jot ju ne te ñeenti problème yi gën a mag ci àdduna ak seeni solution yëpp sama borom tudd ko ci wala tudd leen ci bu njëkk ba di problème mu diine mu tudd ko ci asxaabul ñaareel ba di problème mu alal mu tudd ko ci borom ñaari tool ya wala ña amoon tool ya wa dariba masalan rajulayni ja'alnaa li ahadihima jannatayn mhm. ñetteel ba di problème bi nga xam ne bokk na ci crise yi gën a mag te oustaz tudd ko sànq muy crise intellectuelle ci mhm. xamul di wax ak ki xam ba noppi mais xamul na muy waxee mhm. wala bu xamee na muy waxee xamul ña muy waxal bu mujj bi nag muy prise bu dellu ci pouvoir te mu tudd ko xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu <laughs> danañ gën a yaatal ak oustaz ndax incha moom dem na ba gis ne am na nag ñu ne ci daara ji te war a ñëw ci làng ji ba gisoon nañ oustaz mu tabbi ci terrain politique bi mhm. waaye nag wolof dafay wax ne lii duuf ci nag wi ajut ci sin incha allah daañu am yeneen jotaay. incha allah ak fadilatul oustaz oustaz looy tàggoo bokk yi yi mooy rek xanaa wane sama mbégte ci dalal gi ñu dalal fii wane sama mbégte ci ñi ma àndal ñu gunge ñu bañ agsi fii sama mbégte ci kendal lu am solo li wane sama mbégte ci teraanga yi maa ngi wax daaw nag bu dugal loolu moo doon filmé ci teraanga yi ndax su boobaa ndaw ku ndaay man dana am problème waaw moom na ma dencal vidéo boobu rek mu dox sama diggante ak moom wax dëgg yàlla mu sunu xol sedd na lool loolu de ma jaaxal <laughs> kon jotaay bi am na solo eh, laaj itam am na solo macha allah laaj xam-xam la donte kii tontu moom tontuwul ci xam-xam waaye mu ngi doon mi ngi doon nab na bi eh, keroog ba ñu dajee ca. zawiya ba ak ba ñu dajee fële ca eh, jataay ba salatu tasbih ba ca ngàpparu ah. loolu lañ waxoon ne ah. yàlla mën naa def ah. eh, sunu jataay yi di ñëw di ñëw di ñëw ndax keroog jël nga fa kàddu wax fa kàddu yu rafet macha allah ngi ñaan borom bi mu yokk na barke ñun ñëpp eh, tafsir saaxo kenn la woon ci nun ah Ibrahima saaxo jëlee naa lu bari ci moom ci wàllu formation ci wàllu communication mosuma ko jox loxo mosuñoo toog waaw mosuma ko jox loxo mosuñoo toog xaj itam Siir Saaxo nag moom moom dafa naan wax booy sunu booy bi bu nu dajee lépp lu ne ci poos bi jaral na ko mu dindi lépp jox ma ko des ak sero mu munu fee weesu nañ ma baal mas na maa jox bon essence yoo xam ne moom ma ko mas a jox Sénégal gis nga carnet yooyu xam nga bon échange dafa am carnet bu lëmm ñuy dagg di joxe carnet yi la wut ñaar xaw ma ñett boole lépp jox ma ko ma ne ko lii nag mu ne ma noonu noo lay nii <laughs> yow foo dem ñu nga fa defal waaw yaay sunu booy lu mu daan wax ndeysaan moo tax bi ngeen di ko présenté sànq ci biir léegi sunu yaram daw lool ci wàllu googu yow tam ñu ngi lay jaajëfal macha allah di la ñaanal barke ci barab bi ak tawfiix te sunu borom mi la ko yan jàpp ci ba man mën ko lool te euh, dara bañ a wadd dara bañ a defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa ma wax ak yéen ndaanaan ni réew mi laa bëgg woo déglu leen déglooti leen déglu leen